salaamaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 ci coupe du monde bi la ñu koy dooree muy ñu am ñaar fukki at jëm suuf ñu leen di woowee under 20 tey jii Gambia dafa daal di qualifié gannaaw bi mu dooree ñi nga xamante ñoo di waa France ñaari bal ci benn looloo ko may mu qualifié ci li nga xamante ni mooy huitième de finale yi Gambie jot na tikkeem fekk ji Nigéria voilà kon euh, Sénégal xëy na moo ci équipe bi ci topp xëy na ndax ñu ngi war a joué ci samedi bi voilà match boo xam ne gagné rek la ñuy xaar ci ñun waaye Gambie moom daal dinay qualifié ndax ñaari match yu mujjee ñaari victoire la ci am France gi mu doon dajal nag moom jamono bi moom li ko desee bareetul ndax daanaka toog na ñaari match yu mujjee ñaari defet la ci dal di jëlee ñoom waa France kon ñoom fi mu ne nii mën nañu wax ne Sénégal sax moo leen gën a jekku toogaay ndax ñun au moins am nañu benn poñ bu ñuy doxantoo di ut lu ñu ci dolli France nag moom benn poñ amagu ko ñaari match yi mu yëpp dañu ko mbuqi toog la gën a jege jamono bile voilà gannaaw loolu nag dana ñëw ci Chelsea football club bi doon football tey ji ak Manchester United ci English Premier League bi Man United dal di koy duma ñeent bal ci benn voilà loolu sax may ñii di waa Manchester United jamono bi ñu daal di qualifié ci Ligue des Champions yi Manchester dafay dem Ligue des Champions kon fi mu ni Angleterre moom leer na ñeenti équipe yi nga xamante ne ñooy jeexalee li nga xam ne mooy championnat bi ci top four yi xam nañu leen voilà léegi mën nañoo wax ne ñii di waa euh, Manchester City mooy dem Arsenal Newcastle United ak Manchester United ñeenti équipe bi ñooy dégg maam da représenté Angleterre ci wàllum Ligue des champions yi loolu nag nekk loo xam ne am na solo ba ñuy xool nag ñi di Newcastle moo ciy gan Manchester daan dem léegi nag bu ñu xoolee ci li nga xamante ne ca topp mooy équipe yi war a dem Europa Europa League Liverpool la Liverpool nag moom fi ne nii. du dem Ligue des Champions Europa League la jëm muy lu doy waar Liverpool bi nga xam ne mën nañu wax ne ci at yi ñu weesu finaalu na Ligue des Champions ñaari yoon wala sax ñetti yoon ndax kat dafa ñàkk ñaari final contre Real Madrid gagné benn contre Tottenham loolu nag euh, dégg nga maam euh, yàggul dara ci at yii rek léegi nag ren ji ñu gis nag jafe-jafe yi nga xam ne dund nañu ko yóbbee leen di nga xamante ne muy Europa League voilà kon Sadio daal jàpp naa ne manqué na Liverpool <laughs> jàpp naa ne bu fi nekkoon moom Liverpool euh, war na mën a qualifié voilà Sadio moom borom jëm la voilà Salah nag moom réagir na mu ngi méttitlu bu baax a baax li nga xamante ni moo leen dal voilà gis na ne moom amoon nañ équipe boo xam ne ni joueurs yi ñu soxla ngir war a dem ci Ligue des Champions ba yooyu am nañu ko waaye nag moom dafa dal di réagir juste après bi match bi jeexee voilà dal di am rëccute bu baax a baax ci saison bi nga xam ne ñoom am nañu ko donte ne temps yi gis ngeen ñuy dóor di tegale ay victoire waaye li ko jiitu mooy yàq lépp ndax moo leen yóbbee tey ji ñu war a jouer ji Europa Brighton la ñu cay àndal waaye nag bu ñu xoolee li nga xamante ni mooy wàllum Conference League muy Ligue Europa Conference foofu moo xëccoo ba moom fa Tottenham bi nga xam ne ci njëlbeen ñu bëri yaakaaroon na ne yaakaaroon nañu ne moom maanaam war na mën a qualifier Ligue des Champions fi mu ne nii waxatuñ sax waxi Europa League li muy xeex mooy fexe ba dem ci li nga xamante ne mooy Ligue Europa Conference maanaam Conference League lay xëccoo jamono bi voilà moom Tottenham voilà ànd ci ak ñi di waa Aston Villa voilà ak yeneen i club foofu daal la bi nekk fi a dem ci euh, na Ligue champion leer na Chelsea football club moom du dem benn ci yooyu le ndax saison bu bon bi nga xam ne def nañu ko ñoom li ñu doon xeex sax mooy maanaam fexe des ci championnat bi waaye nag maanaam wàllum football Europe moom ren déwén Chelsea du ci bokk te ren ji nag mooy équipe bi ëpp lu mu génnee xaalis di jënd ay joueurs dañ doon jënd rek di jënd rek waaye nag gis nañu ne daal loolu mujjul fenn ndax kat euh, déwén moom dañuy concentré xëy na foofu lay ci Angleterre fexe gagné coupe wala boog Premier League loolu daal mooy seen liggéey fi mu ne nii waaye mbirum Europe moom fi mu nii ñoom bokkatuñu ci voilà déwén leen mën nañoo jouer seen saison ba mu jeex amaana duñu génn sax Angleterre ñoom waa Chelsea football club loolu moom dafa leer gannaaw loolu ki nga xamante ne mooy Erling Haaland moom la ñu tànn moo nekk li nga xamante ne mooy footballer of the year foofu la ci English Premier League bi Erling Haaland mooy footballeur de l'année loolu nag dal dinañu ko jox tey jile li gannaaw bi nga xamante def na ngan di saison ngan di saison la def ak ñi di waa Manchester City mu nekk sax premier saison boo xam ne moom la fa def waaye daal kenn mënu ko woon te Haaland kenn xamul fu mu jógee nekk di dugal ay ay but boole ci ak doole joo xam ne dafa jaaxal sax li nga xamante ne mooy défenseur yu yeneen équipe yi tey ji kon moom la ñu tànn dal di koy jox li nga xam ne footballeur de l'année muy lu mérité nag kenn wax ne xalaan deful saison wala bokk waroon nañu koy jox diw loolu moom wax ju yàqu lay doon voilà gannaaw loolu dañuy ñëw nag ci wàllum transfert ñii di wax Real Madrid kat fi mu ne mel na ñu ngi actif lool ci marché bi xam ngeen ne tey ci suba déggoon ngeen ñuy wax waxi ki nga xamante ne mooy Robertson bi nga xamante ne joueur Liverpool la ñuy wax ne Real dañu ko bëgg waaye nag am nañu beneen option de mooy ki nga xamante ne mooy ko Hernandez bu AC Milan wala Théo Hernandez Théo Hernandez la moom mi nga xam ne Real Madrid ñoo koy jaayoon AC Milan fi ne nii ñu ngi séntu ne bu ñu ko mënee récupérer waat dinañu ko def voilà ñoom bëgg nañu kii di Théo delluwaat foofu la ci Real Madrid ndax kat gannaaw di waa Tottenham kat gis nañu ne club yi mag yi tom nañu leen topp nañu ko ba sonn noonu nii nag ngir ñu teeku amaana mën a nekk problème ren li ñu gën a séntu mooy Harry Kane dina jóge Tottenham rawatina bi nga xamee ne ñoom qualifié wuñu ñu ko ci li nga xamante ni mooy mbir moomu gannaaw bi ñu leen ko tegale ne suñu ko bëggee mën nañ ci jot bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi